laay fi ni cas yi cas moo critique fi ni cas bi dafa am beneen tournure mayaat ma waaye s'il te plaît sama soj bi laa bëgg mu rek noo tee laa bëgg tee tee citron ñëw leen ñëw leen jënd naa connexion 10 000 ñëw leen ñëw leen cas bi cas bi bi moo am beneen tournure fi mu bi man kaabi kaabi moo am beneen sens cas bi moo am beneen sens cas bi moo am beneen tournure tournure beneen tournure la am kaabi bi c'est nekk bi man fi ma jàppoon cas bi du woon cas donc fu ñu yemoon. instant yi boo leen deful kër live dañ koy coupé te man mënumaa kon mënumaa di wax di coupé waa parce que xam li ma doon wax du ma mën di déglu li ma doon wax léegi dañuy eggali vidéo bi ma doon wax damaa bëgg jëgëru murit bu pare comme ça ma leeral leen coupable yi mais association criminelle Ndiaw Fall ak jabar ji xam nga sama ko ñu yaay lañ dëkk njaw Fall di Ouest Foire la dëkk si marché bi non yaay bàyyi ma si marché bi la dëkk sama yaay dëkk Ouest benn koñ moo leen tàkkali sama yaay moo tas sëy sama diggante ak Njaw Faa parce que Njaw Faa dafa doon maltraité léegi moom nag mu dem wis poobar sama kër yaay pour maag sama yaay nu xuloo nu xeex devant tout le monde léegi comme dafa bëggoon xeex devant tout le monde xeex nañ devant tout le monde juboo nañ devant tout le monde parce que diggante doom ak yaay dafa foor ndax entre ween soow ak ween dara xaju fa gis nga ndey bu lay tiim di la nàmpal di la xool loolu gàllaaj weesu ko te ndey du jur doomam di ko bañ ndax man lu ma am tey sama yaay la mais xam nga affaire cas bi tata maam jaara faam daf ma conseil daf maa woo ci pet xam nga boo amee boo boo nekkee nit di déglu dangay neex a gindi léegi sama histoire dama bëgg mu jàngal mu servir leçon képp kuy nit Sénégal képp kuy jigéen Sénégal yàlla may la daraja yàlla may la tur may la teraanga il faut nga moytu say noon ndax noonu du la sori mukk sa koñ lay dëkk waaye yow njaw faal yow yow li nga def noo ko mu ay man jëkkër nakete nit dina la yow yow yow yow ñaan naa la sama baat may nga ma sama baat sama idda jeex na toog nga ne sénégalais yi Nabou Dash iddam jeex na bàyyi leen jàmbur nakati yaa ngi déclaré waaw oh my god nakati boo taalee sonde lépp leer borom day ju liggéey kenn mënu koo gàggal njaw faal njaw faal sa ndey gënul liggéey sama ndey damay teg kaawu bergaan bi si suuf bu pare régler kaaw Ndiaw Fall parce que c'est la cause de tous mes problèmes Ndiaw Fall il habite à Ouest Foire marché Serigne Fallou deuxième étage à gauche avec sa sorcière njaw Ndiaw Fall Mariama Gouda Ndiaye te dégg ngeen keroog sama laay bu mujj bi ma solee semis euh, intimat dama leen attaqué ñoom ñaar ne leen yéen moom yéen moom ci dëkk bi dootoo leen jarati dara couple gis nga association de malfaiteurs googu ñu ne laay xam nga Mariama Ndiaw Mariama Ngouda Ndiaye ci moom laay commencé parce que loo gis dafay am commencement te nee naa leen billaahi wallaahi wataalaahi ci barki Serigne Touba bi ma yaakaar fi mu ne dootuma ci waxati ci kaa bi mais dama bëgg mu leer parce que yàlla dafa ne buñ la tuumaalee si kanamu ñëpp te nga am gémmiñ mun a wax setal sa bopp setalal sa bopp parce que dégg dafa gaaw. yaay man bu dee damay wax nga may coupé man damay dem si mbedd bi toog si mbedd caaro gi di wax ko ci pont caaro gi laay toog wax sama sama laay am naa ay garde corps il faut nga bàyyi ma génne li nekk sama bi sama xol ma tef waale wu Sénégal yi comprendre ni que sama digganteeg Bergane jaxasoo gi sama digganteeg sama yaay jaxasoo gi sama digganteeg sénégalais jaxasoo gi lépp lépp lépp monseigneur Ndiaw Fall son altesse le roi des criminels Sénégal ay Ndiaw Fall yaa bon Ndiaw Fall ni nga tuute noonu la soxal tuute Ndiaw Fall yaa bon yaa mees waaye Ndiaw Fall nga ne yow doo ma bàyyi. man comprendre ma njaw Fall yow yow yaa ngi publier sa jabar nee nga Mariama Ngounda Ndiaye mooy sa aawa yaay yow kay ku am aawa yaay bu baax kay looy doyee ñaareel gu sikk ma kaa bi day leer de bu baax looy doyee ñaareel bu sikk Ndiaw Fall ma question avec Ndiaw Fall mooy ku am aawa yaay bu baax bu la jig nee aawa na la jig bu la aawo jigee lépp danga koy am aawo na la jig yow bu sa aawo jigee depuis yaa ngi am 40 ans Ndiaw Fall Ndiaw Fall fu la dugg nga fa nee na nga xam nga ministre yëpp xam nga député mais lu tax député yi nga xam ministre yi xam kenn respecté la Ndiaw Fall Ndiaw Fall dangaa fen ba takk ma Ndaw Fall dangaa danga maa lëri danga maa dribblé danga maa fen ba takk ma jaar ma ci ay affaire de yónnee say agent interview xam nga man damaa bëgg bëgg interview man fu ma fekk may interview ma interview la monde à Dakar lépp dama koy preuve xam Sénégal moom boo waxee dëgg ñu naan ci dafa bëgg buzz dafa bëgg buzz ndax dañoo soxo duñu déglu dëgg xaar leen ma ma wane interview le monde à Dakar bi ma YouTube dama ko bëgg ndax samay archive la yoon nànk nii ma wan interview bu ma defoon la monde à Dakar samay téléphone maa la gën a bandi njaw fan bu yeboo nga supprimer ko tout de suite parce que dama koy détecter tout de suite wane ko li ma def vidéo togg bi laay def fi mu ne du dangaa bëgg yow nga ne homme de média lu nu def nga def ko sa site le monde a Dakar fi mu à Dakar laa jëm fi mu ne directement bu yeboo nga supprimer ko tout de suite parce que fa laa jëm attention je suis dans le monde à Dakar tout de suite archive var ma def interview le monde à Dakar nekkee faal Fall moo sëñal Ndiaw Fall interview baa ngi nii Monseigneur Ndiaw Fall si interview bi la ma gis Bardema. à la présentation Latmingué Faye ñu dalal suñu invité Nabou maa ngi lay nuyu. gis ngeen date bi salaamaaleykum euh, Latmingué. il y fay di kontaan tamit si invitation bi ngeen ma defaral nii si seen bi. le monde à Dakar la VAR. maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. d'accord euh, euh, ñuy ñuy. VAR lu amul baaxul man lu ma wax day am preuve. gis ngeen ko euh, euh, le monde à Dakar euh, heure de vérité Nabou Dash tey mooy heure de vérité Ndiaw Fall mm-hmm. actualité su ma ko waxee mën nañ laal affaire Ousmane Sonko. ak kii lay nga xamante ne mooy soxla si ko tuumaal. Mm-hmm. ñu gis ne. problème bi lu muy rëy rëy dafa laal ay secteur euh, premier secteur bi nga xamante ne laal na ko mhm. euh, coow li ternir na image am muy mhm. salon de massage yi te yor nga ci mhm. benn nan dundee situation boobu donc euh, damay sawar di ci wax parce que da sa télé njaw faal te ngay am buzz à vie Sénégal donc comme je travaille ici au Sénégal donc aujourd'hui daf maa nob fii la ma Mhm. yow Fatou délinquant la <laughs> invité ma sa émission nopp ma gis monde la le monde à Dakar mi ngi nii damaa dégg tubaab nag déglu leen ma. pour le cas de Sonko. Mhm. mais je parle en tant que patriote. aujourd'hui les faits euh, qui sont reprochés à Ousmane Sonko pourraient euh, en pâtir, mais d'une manière ou une autre, sur moi, mon activité. Mm -hmm. Il faut savoir que derrière, mon, derrière cette activité-là, derrière moi, nous avons euh, plus de 5, 6, 10 filles mm -hmm. qui sont en train aujourd'hui de gagner leur travail, de gagner le pain, mais à la sueur de leur front. Il faut rappeler aussi que euh, tout le monde n'est pas dans ces bassesses-là, tout le monde n'est pas dans cette logique de révéler euh, un tel vient chez moi, un tel se met chez moi. Non, il y a des gens qui mm -hmm. gagnent euh, euh, à euh, euh, la sueur de leur front, mais, mais, mais, mais, dans ce, dans ce système-là. Mm -hmm. Il faut savoir aussi que ce qui s'est passé avec son corps pourrait aujourd'hui... Euh, quand on parle de, de, de, de l'influence, vous pourrez avoir une mauvaise influence sur aujourd'hui, nous, Sénégalais, Sénégalaises qui œuvrons dans, dans cette activité-là. D'accord, d'accord. Donc, il faut dire aussi euh, favoriser euh, tous, ces, tous ces étrangers qu'ils font. D'accord, quand voilà. instant bi euh, confirmé nañ nga euh, mm-hmm. affaire Ousmane Sonko, mm-hmm. euh, yàq na business bi. Mm-hmm. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je sais que bon, j'ai ma clientèle, après c'est vrai, mais tey lii dal Sonko dina tax ne que benn kilifa du ñëw ci man dinañ ne ah non. Macron, comme il y a eu ça qui s'est passé avec son compte. Donc moi, écoute, j'y vais pas. Donc ils vont aller où on a des, des, moments de fatigue, des moments de faiblesse, donc on ne va pas prendre un avion pour y aller, se faire C'est vraiment, voilà, l'entente ne va pas au-delà de ça. Mhm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, Sénégalais. yow fa détective ne fi ne yow dootoo ko defati dangaa bëgg bës sa télé ngi nii tàkk nga nga dama la naroon tey laa lay fay directement en direct laa lay fay yow toogal rek say mbokk nañ jël sées toog cas yëpp laay wax seen cas famille laay wax fi mu ne nii ndax yéen a ma ëpp problème pédophilie yeeg cagg-cagg yeeg sëriñtu seen kër gi ñoom Mariama Ngoné yaay ñoom day Naté tout le moon laay dakkaar seen ndey un par un man ngeen jaxase ak sama yaay yéen ngeen ne da ngeen may trouble mental <laughs> xaar leen ma ñëw naa dakkaar seen ndey tepp seen cottu ndey un par ma ma ñëw rek tout ce qui est folie mhm. mais léegi on voit beneen Nabou Dash boo xam nga xamante ne beaucoup plus bandi woo leen sax

influence euh, plein de gens, plein de jeunes filles de mon pays et de diverses, euh, euh, horizons. Je ne vais pas aussi, moi, me limiter à, emmener les gens dans la stupidité ou dans la folie. C'est vrai qu'on a tous des petits moments de délire, rigoler, tout ça. Je pense les femmes, moi je dis toujours quoi, les mais attends, je règle mon problème. Non, non, écoute d'abord, la fin, les gens doivent comprendre. ci la jeex léegi déglu rek. merci très affirmé donc ça veut pas dire que derrière que Nabou n'a pas de travail ne ne ne ne ne ne constitue pas. laat méngé ak mën a journaliste waaye fi ngay liggéey baaxul de bu yóbbu nga génn fi ndax du luñ la fay yow salaire la amee laat méngé amal jom génn fi nga ne. Euh, euh, wax nga ko léegi côté influence euh, gis nañ ñu ngi lay suivre ci nga xamante ne mhm. danga leen di may fit un peu mhm. euh, mais ñu gis ne beneen côté di laaj lu mu wax kaa bi aw Sénégal la merci beaucoup Zeyna Diatta dañ la xaw a wax dañ la xaw a mere tuuti parce que nee nañ da ngay influencer xale yu jigéen ñi mhm. euh, euh, te beneen sens bi yaa ngi ubbi xel avoir une